jërëjëf Anna Thiaw gan gi Ousmane benn Thioy ni nga ko waxee mu yore communication digitale bu PLD And Suqali nekk itam conseil municipal ca ñiit ñu ngi lay nuyu Ousmane di la daral jàmm ci matinalu réew mi. Fatou maa ngi lay nuyu di nuyu euh, auditeurs u réew mi FM yëpp ak su Rewmi FM yëpp. Mhm, ñu ñoo la gën a kontaan alors ñu tàmbali waxtaan wi ak euh, solos communication digitale ni way politique yi daw wutale euh, xarala yu bees yi lan la leen mën a indil euh, comme xëy na yokkute ci ci ci seen wàllu yëngu-yëngu politique. waaw xam nga communication digitale xarala yu bees la yoo xamante ni Euh, à partir de internet boo amee internet rek daanaka di nga mën a jàllale sa message mën na yokk lu bëri ci ci politique yi wala ci commerce yi wala ci lépp loo xam ne rek bëgg nga jot information jaar fa ndax boo gisee nit ku nekk daanaka am na téléphone téléphone yi am na day jël application mooy Android wala sam euh, wala OS day jël euh, réseaux sociaux yëpp muy Facebook muy Twitter muy Instagram. donc lépp loo bëgg xam ni Sénégalais yi bëgg nañ ko xam boo ko jaaralee foofu dina yomb itam boo bëggee yokk sa parti itam euh, mën nga fa jaaralee lu mel ni euh, wàllu inscription wala wàllu wàllu euh, massification de si sa si sa parti boo ko jaaralee foofu sénégalais bu gën a soree dina ci mën a jot te dina dina yomb pour mu jot ci donc mm-hmm. xarala boo xamante ni njëriñ bi mu am njëriñ bu bu bu bu la bu Sénégalais yi ak nit yi xamee eh, naka lañ koy utiliser. Hmm. bu ñu xamee naka lañ koy utiliser ça veut dire que am na loo ciy def mu mën laa euh, yàqal itam. Euh, waaw waaw loolu loolu loolu loolu am na ci. ndax boo gisee. Euh, dimension bi mu yor dayoo bi mu am rek euh, nit yu bëri dañ ciy jaar di ci utiliser leneen loo xamante ni bokk ci moo tax xam njëriñ bi xam naka nga ko utiliser dafa am solo parce que lu gaaw a lu mu mën a defar noonu la mën a yàq lu bëri loo xamante ni lu mel ni information bu dëgg bu dul dëgg bu ci jaaree balaa nit yi di comprendre lii du dëgg dina dina dina dina dina yéex. waaye itam ñi koy utiliser bu ñu xamulee naka lañ ko utiliser mën nañ ci def ay erreur yoo xamante ni bu def dul gàllankoor seen liggéey wala yàq seen der wala wala am leneen nu mu leen présenté loo xamante ni nekkul woon lu gën. Mhm. alors ñu wax ci actualité politique tey wala politico judiciaire mbiram Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang tribunal di ci waxati tey procès en appel la waaye njiital Pastef démb ci guddee xamle na nii du ca dem te dootul wuyooti yoon ndax jàppul ne te deen njaxanaay taxawaay woowa euh, woote di désobéissance civile noo ko gisee. waaw man xanaa am ci lu ma metti rek ndax képp ku bëgg jiite Sénégal nga xamante ni même bu fekkee Sénégalais yi fal nañ la boo demee bay di taxaw di waat euh, magistrat yi ñoom ñooy waa justice ñoom ñooy taxaw pour sa waat boobu am valeur donc yow boo taxawee nga ni da nga bëgg jiite Sénégal nga taxaw ni d'accorduloo mën nga bañ a d'accord ci li justice di def mais bu la justice woowee da nga war a dem wuyu donc man dama jàpp ni loolu taxawaayu ah, responsable bu jàppee ne justice booba politique yi la fi nekkal nag xam nga justice boobu Sénégal sosoo ba léegi justice mi justice bi nii lay mësa a mel te noonu lay mësa mel ay nit yi fi nekkoon démb avant Ousmane Sonko di nekk leader ñoom ñoo fi nekk tey te ñoom ñoo fiy nekk suba te man dama jàpp ni man bu ma ko jëlee ci sama bopp juge yooyu magistrat yooyu dañu jàng fi ñu war a jàng am li ñu war a am ba toog war a mën a tranché alors ñoom du wee affaire Ousmane Sonko yi moom moo tax ñoom ñu war a ñàkk seen honneur ñoo war a tax ñu ñàkk seen ngor dama jàpp ni juge yooyu li Ousmane sonk di incarné lu ko raw la ñuy incarné te lépp lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy àtte man dama dama jàpp ni seen akulaay taalaa moo tax ñu koy teg. mais seen yeneen moroomi magistrat taxaw nañu ne politique yi dañuy dugal seen loxo ci wàllu justice. notamment exécutif UMS def fi ay ndaje taskatu xibaar yu bare baree bari lataa sax Ousmane ko dugg ci làngu politique bi ñaawlu lii muy ñaawlu tey donc euh, est-ce que mënoo ko nangul aussi ne yaa problème wala xelam bu teeyee jaadu na. xam nga man duma duma duma juriste. Mm. waaye dama jàpp ni juge yooyu fii ba àddunay tukki bu lu ñu mën a daa gis benn ku ci d'accordul taxaw wax leneen loolu yàgg na ci way politique yi. Mhm. UMS ak keneen ak keneen chaque jour ñu wax loo xamante ni ci justice bi lu baax la mais daanaka duñ ko fësal sénégalais yi wala Ousmane Sonko en personne day xool loo xam ni. Mhm. peut-être du. loo xamante ni mën na nekk erreur bu ndaw la loo xam ne lu ñu war a corriger loola lu ñu mën a pardonner la mu jël ko agrandir ko yokk ko ci xeetu communication yooyu muy def nga xamante ni sénégalais bu ko dégg dégg naan lii da mbir mu rëy la fekk du dara donc man dama jàpp ni Ousmane Sonko dafa war a respecter justice xam ni dara du am ci Sénégal loo xamante ni euh, véritablement du njëriñu Sénégal te justice bi dañuy xëy ñibbi seen kër dañu am njaboot dañu am doom am papa am di atte loo xamante ni am nañu yaakaar ni seen aqulaay taala loolu moom mooy lu am donc man manipulation rek laa jàpp ni mm. moom la Ousmane di def ci déclaration yi ni moom la def démb ak moom lay def suba wala moom la doon def bërki démb mm. bokk na ci li mu wax na président Macky Sall musal Sénégal ci rayante goo xam ni amut njariñ bain de sang inutile noonu la ko waxee ndax loolu da nga koo jàppee xupp wala deltu ginnaaw la ci wàllu deltu ginnaaw laa ko jàppee ndax président Macky boobu léegi mi ngi woote dialogue xam nga xam nga xam nga xam nga njiitu réew boo xam ne liggéey nga def bilan bu bu bu doy bu bu mel nii nga yàgg woote dialogue ainsi bu def deux mille seize nga def dialogue deux mille dix neuf nga def dialogue pays bi tendre pays bi mel nii mu mel nga woote waat encore dialogue pour waxtaan te bu ñu fàtte ne gis nga Ousmane Sonko communication communication bu yàq la ndax fi mu ne nii démb dégg nañ ci waxam sax mu ni commencé xupp Karim Wade di xupp Khalifa Sall parce que nee na boo déggee dafay codé dafay codé communication moo xam ne ku koy ku ko dégg yàlla defal nañu sutura itam ba mën nañ ko décoder. ni ci moom du ci ñoom. mu ah. lim euh, bi mu ne moom du du Khalifa Sall te du Karim Wade. du Khalifa Sall du Karim du Karim Wade du dialogué. ça veut mm. dire que ni moom il mu ngi mu ngi taxé Khalifa sàll ak ak Karim Wade ñoom ay dañuy dialogué. et ñoom dañu war a dialogué réew mi gis nga dialogue mënul ñàkk ci Sénégal guerre mondiale sax ci table la mujjee affaire Ousmane Sonko bi nga xam ni affaire làmmiñam moo ko dugal affaire moom Mbaye Niang Mame affaire Adji Sarr tubéyam moo ko dugal li aji Sarr wax donc dialogue lu mën a am mu dafa dafa tuuti ci personne Ousmane Sonko muy woote ni kenn warul dialogue ak président Macky Sall kenn warul waxtaan mbir mi nag dafa toll foo xamante ni dafa romb affaire dialogue entre moom ak Mame Mbaye Niang dafa dem ci procès ba gars yi interjeté appel mu affaire aji Sarr mi ngi en cours dafa romb fañ ñu waroon a dialogué mooy ba mbir yi amee mu taxaw ni entre moom ak Mame Mbaye Niang muy maa ngi jéggalu mm. ndax man maa juum contre aji Sarr mu itam mu ngi taxaw ni maa ngi jéggalu parce que nangam nangam defu ko nag woote ay nit dee ci ay nit ñakk seen bakkan ay borom nit ci seen i oto ñàkk ci seen i commerce ba ñu weesu fii mu bëgg di di waxtaan communication boo xamante ni juste pour laal sensibilité sénégalais yi pour wan ni moom nitu jàmm la pour wan ni moom nitu du nitu fitna. fekk na mu mënuñu ko mënuñu ko déggee neneen loola mu wax tam euh, mënta tekki ne dafa nar a defante war a nar a dellu ginnaaw am yow gisee woo ko. defante defante dootul am. parce hmm. que yi fi defante yi fi am yëpp moom moo moom moo ci ñàkk. fi li amoon deux mille vingt et un nga xamante ni Sénégalais yi yeneen métit la ñu boole woon ba yàqu-yàqu yi am mille vingt et lépp lu fi am dañ koy fekk fa mu nekk ni ko ciix yóbbu man dama jàpp ne warul àgg foofu parce que lu mu métti métti Ousmane sonk am na ñu ko bëgg am na Sénégalais yu gëm projet bi muy wax projet bi nga xamante ni sax gëmuñ ko mais am na Sénégalais yoo xamante ni gëm nañ ni Ousmane Sonko mën na jiite Sénégal donc moom la rus Sénégalais yooyu ba nga xamante ni su ko justice woowee mu bañ a wuy bañ nekk hors la loi Sénégal nag. am nañu force de défense ak de sécurité yu mat sëkk liñ leen doon doyee Sénégal du du tombe ci loxo yoo xamante ni ay sàmba booy la Sénégal du daanu mukk tant que ñooñu am force de défense et de sécurité yi nga xamante ne nekkuñu fi lan pour dul kiiraay euh, kaaraange sénégalais yi ak seen i seen i seen alal. Hmm. alors ñu wax ci euh, wooteeg président Macky Sall dialogue bi gannaaw ba mu woowee woy politique yi fan yi ñu génn itam dégg nañ ko mu woo collectivité locale yi maanaam maire yi euh, ngir itam ñu waxtaan xam nga ne opposition bi dafa def daara boppam ci wàllu woowa ndax am nañu seen réel mu jàkkaarloo ak AMS di association des maires du Sénégal dialogue booba antu bu antoo itam lanay doon njeexital yi ci yorinu euh, mairie yooya bu ñu waxtaan ak euh, état central bi. Fatou man loolu dama ci kontaan bu baax mais xam nga. erreur la woon rek élection locale yi ñu jóge am mairie yu bëre yoo xam ni Yewwi Askan Wi la opposition bi daf ko gagné te bañ ko gagné ak léegi. waaw ah, lu tax nga ni erreur la askan wee woote di. erreur la boo xamante ni eh, askan bi moo voté mooy boo déggee man la erreur la. Hmm. mooy casting boo xamante ni am na ci côté pouvoir bi yenn maire yoo xamante ni. Hmm. jiital lañ leen waruñu leen woon jiital moo tax. ñu gagné am am am benn empleur foofu mais maire yooyu nga xamante ni gagné nañ leen ba ñu leen faleek léegi du benn birig bu ñu tekk parce que xamuñu naka la ñuy doxalee xamuñu ñoom seen diggante politique ak politique ak diggante euh, maire élus locaux ak ak ak ak état du Sénégal donc état bu leen woowee gis na ni c'est sûr que am na maire yoo xam ne lompoñ nañu war nañu waxtaan ak ñoom war nañ leen mën a jàppale liggéey boo xamante ni njëriñu askan bi la que mu nekk njëriñu politique donc man en tant que comme conseiller municipal nga xam ne maa ngi dëkk ci dëkk yoo xamante ni ci ci monde rural bi la nekk euh, mairie yu mel ni man nga suñu mairie sax nga xam ni euh, euh, mouvance présidentielle moo ko gañ mais mairie yu mel ni suñu mairie dañ fi bëri te amuñu doole war a ànd ak état liggéey ak état te du bokk ak politique bu politique jotee ku nekk dem defi politique ndax problème suuf saa ngi fi problème dëkkuwaay yaa ngi fi problème assainissement problème yu bëri yoo xamante ni tant que maire yooyu mënuñu ànd ak état liggéey de manière véritablement intérêt population yi seen liggéey day day dagga témbe te bu dagga témbe day bokk ci bilan le président Macky Sall donc man en tant que conseil municipal dama ko rafetlu d'accord ci di woo ko maire yi ci Sénégal yëpp les cinq cent cinquante sept maire yu nekk ci Sénégal nañu wuy ci dialogue boobu bañ déglu opposition bi am ni seen intérêt crypto personnel moo ci nekk ñi bëri ci ñoom xamuñu luy li xew ci àll bi ñu bëri ci ñoom xamuñu luy xew ci conseil municipal yi donc dañu dem dialogue boobu waxtaan liggéey pour intérêt exclusif Sénégal pour population yi mën am njeexital bi man a àgg ci population yi. Hmm. alors euh, jafe-jafe yi yaa koy tudd sànq bokk na ci wàllum suuf lan moo waral daal souvent euh, yenn collectivités locales yi problème foncier di leen lëjal lool maire yu bari sax di ci dem kaso conseil municipal nga xëy na mën nga cee. xam nga loolu lu ko waral. Euh, lu ko waral mooy li ma lay wax ñàkk xam seen taxawaay ak ñàkk xam li ñu yor lu mu doon. ndax bu fekkoon ni maire yi dañ leen tàggat. tàggat boo xamante ni conseil municipal yi commission bu ñu ci jox ak nu mu mënti demee ñu xam ne lii ma yor lii laa koy doxalee nii laa koy doxalee lii la samay samay compétence fii la commencé fii la yem li ci des état la wala lu nga xamante ni am na ressource yu ma sëkk yoo xam ne mairie bi dina man fonctionner sans pour autant que beneen nit jóge fële comme nga xam ne ñun dëkku àll yi moo ñu dal dangay gis benn bailleur bu jóge fële ñëw ñu jox ko tant d'hectares ci suuf utiliser ko utilisation boo xamante ni daanaka pot de vin la def ci ci au niveau de la mairie mairie bi gisul benn traçable loolu moo waral. est-ce que conseillers yi ñu ngi saytu loolu euh, yow ak ñeneen ñu mel ni yow. ndax am ngeen benn regard ci ci suuf seeg euh, yorin woowa ndax dañuy faral di wax ne conseillers yi bu ñu leen falee rek jeex na bala ñuy ñëw daa am lu ñuy woote bu ñu ñëwee ku ne am na foo féete yëkkati loxo mbaa. effectivement je suis ah, en gis nga loolu. Hmm. responsabilité ñëpp la surtout conseil municipal bi mais en général Sénégal ni ni ñu amee mairie yi naka lañ koy Euh, le maire bu amee dara lu muy voté bu amee kantoomam rek bu amee li nga xam ne moom la soxla pour pour pour li muy voté jàll rek daanaka day xool ci ay ñoñom mu woo leen ñu ñëw mm, voté. day am ay conseiller boppam. day am ay conseil loolu moom gëm naa ni du gaaw a pour mu dañ. si mm. dëkku àll yi. du lu lu jafe lay doon. Mm. moo tax conseil yi ñu war a leen a tàggat. ku war a nekk conseil ñu tàggat la nga xam lan mooy sa ak sa yelleef. Mhm. ak la ka nga war a voté. pour mhm. intérêt intérêt population bi ak lan nga war a voté loo xamante ne du intérêt population mhm. loolu moo waral mairie yu bëri du def du ñu def lu dul seen topp seen bakkan. ba ëllëg si bu ñu leen audité wala saytu seen liggéey ñu gis ni erreur yi ñu def dañuy hmm. tàbbi kaso ñu tàbbi kaso wala jël ay suufu jàmbur joxe ko sans pour autant ñu xool hmm. lan la mairie bi moom ak lan la état bi moom ak lan la particulier yi moom hmm. donc loolu dafa nekk loo xamante ni véritablement état bi war na ci gën a taxaw ci dialogue bi ñu wax ko waaw ah, bu ngeen dialogue yi ngeen waxtaanee ko fa xëy na waaw du dialogue bi <laughs> peut-être dinañ ko waxtaane mais buñ ko waxtaanee xam naa ni du nekk lu jëriñu population yi parce que population yu bëri sonn nañ mm-hmm. gox boo dem ci monde rural bi ñu naan la sama suuf dañ ko jël mm-hmm. wala suuf bi mairie bi jël na ko jox ko ñoo xamante ni mm-hmm. du waa population bi alors que loolu du du du luy rafetal liggéeyu président Macky Sall du la du rafet du nekk luy rafetal taaru Sénégal. jërëjëf euh, Ousmane Ben Thioye ñoo ngi lay gërëm amoon te dalal la ci matinalu Rewmi FM yaa yore wàllu communication digitale bu PLD ànd suqali conseiller municipal nga itam ca ñiit amoon nañu mbégte dalal la. jërëjëf Fatou maa la gën a kontaan merci. Fatou maa la gën a kontaan merci.